l'intérêt de cette rencontre c'est d'abord de dire que politiciens yi bu ñu foowee askanu Sénégal rawatina ñiy wax ci kaw di wax ci suuf rawatina ñi nga xamante ni aussi dañuy jël ay position bañ ko assumer la politique responsabilité corollaire am seexandoolam mooy assumation su dee da ngay def politique te ñemewoo assumer bàyyil su dee da ngay def politique te amoo courage politique bàyyil su dee dangay def politique te yàlla dimbaliwu la nga mën a muñ li nga xamante ni moom mooy alal ju léwut bàyyil su dee da ngay def politique te noppiwoo ci sa bopp ci ay jikko yoo xamante ni dinga lu bari di nga ko rus di nga ko jomb bàyyil et loolu c'est un message à l'endroit de toute la classe politique et loolu c'est ça qui des entretiens ak des rencontres yi ñu def ci askan wi askan wi dañu ñu wax nañu lañ ñu digoon depuis 64 ans loolu gisuñu ko gis ngeen li xew bërki démb wala démb Kédougou daanaka ci fan yi ñu romb lu toll ci juróom-ñetti nit faatu nañ ci éboulement yi nga xamante ni moo am ci foofu nga xamante ni fa la ñuy wutee li nga xamante ni moom mooy or bi lu toll ci juróom-ñetti nit insécurité bi insécurité fees dell ci réew mi bu ngeen demee fii gi dégg ngeen ko keroog li xew Seras ma leen di nuyu ay jàmbaar yu fa nekk di liggéey am fulla am jom bëgg lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu seen kër euh, lu lew ay rendeek lu ne ngeen fay dégg ndax ñàkk sécurité Seras ak na mu amee solo yëpp ñu ne benn ASP lañ fay teg pour mu assurer la sécurité loolu su fekkee ne danga ngaa yaa ngi koy def parce que da nga bëgg nit ñi parce que da nga bëgg a taxaw nit ñi li ngay def ak li am wuute na te njiit li ñuy xaar ci moom. mooy mu am yërmande ci askanam gaay yii may gis ci ñenn ci ni ñu yore nguur gi ak ñenn ci ñi ñuy wute nguur dama cee gis ñàkk yërmande bu mat sëkk ñàkk yërmande bu mat sëkk laa ci gis wut nguur rek bëgg fauteuil bi rek tax ñi yàq bëgg a yàq réew mi ñi bëgg yàq jikko yi ñun jàpp nañ ne loolu duñu ko seetaan mu ko rempart la ñuy doon contre loolu parce que li ñu ëppal solo du fauteuil bi li ñu ëppal solo du élection li ñu ëppal solo du mandat suñu digganteeg Sénégal weesu na mandat weesu na élection suñu digganteeg Sénégal gën naa sori loolu dafa am ndono loo xamante ni moom lañ fi fekk mag ñi bàyyi ko fi les pères fondateurs les précurseurs les francs-tireurs ñun loolu la ñu bëgg a sàmm loolu la ñu bëgg a ñoŋal ba nga xamante ni ëllëg bu ñu dajee ak ñoom du ñu rus dinañ nekk ah léeg bi ngeen fa bàyyi woon sàmmal nañu leen ko. waaye mieux mieux encore mieux encore góorgóorlu nañu ci góorgóorlu nañu ci ba fexe nañu ba bàyyi fa jikko yu tedd yoo xamante ni tey doomu Sénégal dootul ñee kenn ci àdduna bi nga am pétrole am gaz am lépp ba pare say ndaw di jël ay gaal di dem ci géej gi loolu jàpp nañ ne musiba kon encore une fois ak toute la violence bi nga xamante ni wax naa ko léegi tudd naa léegi ci sama discours bi ci français suñ benn militante boo xamante ni Chacha la tudd Euh, nekkoon Maroc bi ñuy waaj dugg ci élection yi mu ñëw Sénégal pour ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi nekk jigéen bu jàmbaare moom ngeen seen keroog mu sol mayo Sénégal boobu ñu yéegal ko ci benn pick-up ak policiers yi di ko dóor dóor yu métti yooyu kon loolu ñoo ngi koy condamné di ko dénoncé di ko massawu tamit parce que ba muy jógee Maroc di ñëw fii dafa ñëwoon pour campagne pour vivre un grand moment de la démocratie sénégalaise noonu la ñuy massawoo tamit ñëpp ñi nga xamante ni victime de violence quelle que soit la nature de la violence ci processus électoral Sénégal waratul am processus électoral di am violence ñun loolu la ñuy condamné loolu la ñu jàpp ne la meilleure façon de changer loolu mooy ñu renouveler li nga xamante ni moom mooy le personnel politique ak vision bi ñu am ci politique parce que kaay ma kaay leen dénk ma rek mais jarul rayante aussi jarul jarul dee jarul rayante kon encore une fois nu demandons au président Macky Sall nous demandons au conseil constitutionnel nu demando à tous les acteurs yi nga xamante ni ñoo war a intervenir ne leen ñu def élection yi avant le 2 avril et que les serviteurs en l'occurrence sunu coalition Papa Djibril Fall président jàpp nañ ne mooy bi nga xamante ni moom la sénégalais yi soxla pour mu ñëw remplacer ki nga xamante ni moom mooy le président de la république le euh, jàppaguñ dat dat bu ñuy jàpp comme fexe na kon comme comme comme lijjanti nañ ba xañu suñu dat bi waa voilà nañ ñu dimbali defal ñu loolu parce que sénégalais yi loolu la soxla koo dajeel danaan la njaqare bu mag la àndal ñëpp jaaxle nañ kon njàqare boobu encore une fois politiciens yi am nañ habitude di ko teg sénégalais yi mais nañ ñu dimbali ba génn si ba mën a jàll ci leneen en tout cas ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant su fekkee ne su fekkee ne je parle je je fais une dérogation par rapport ak Gémodi su fekkee su fekkee am nañu ay question ñu jël ko suñu amul question ñu ñu ñu ñaanalante Donc très rapidement, on va procéder euh, aux questions. On va prendre juste 5 questions. 5, s'il vous plaît. Donc 5 questions. Donc, euh, s'il vous plaît, on va essayer de résoudre les questions. S'il vous plaît. 5 euh, Ok, parfait. Questions Euh, on n'envisage pas un référendum. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons, c'est que tous les acteurs concernés, toutes les institutions, y compris l'exécutif et le juge électoral, le conseil constitutionnel, euh, d'appliquer, on demande au, à l'exécutif d'appliquer les recommandations du conseil constitutionnel et de choisir une date euh, qui sera naturellement approuvée par le Conseil constitutionnel euh, pour euh, euh qu'au 2 avril, que le président Macky Sall puisse céder le, le, pouvoir. Donc, mais on n'envisage pas une autre élection qui est suffisamment coûteuse, qui va demander beaucoup de moyens matériels et humains et qui ne servira pas à grand-chose. Ok, merci beaucoup, Président. Alors, euh, une autre question. Mais de préférence, si on peut avoir la version Wolof, ce serait également intéressant pour permettre aux autres Sénégalais qui nous suivent de voir la euh, Merci. Je parle bien du mouvement. Je parle de la mission pour le développement. Voilà, c'était une présentation. Vraiment, on a ci la ñu demee moo tax xëy na dem terrain su fekkee ne bien sûr entre autres entre autres ci la bokk loolu ci la bokk dañoo gis ne bu conseil constitutionnel validé ay candidats da nga leen a yow bu dee yow yaay président de la république da leen a war a nawloo xam ne kenn ci ñoom mën na laa wutu ëllëg jar na sax bu ñu fa eggee doo leen convoqué mel ni kuy convoqué say doom mais dangay dem sax rencontrer leen mooy li ñu li ñu li ñu njëkkoon a tuddee consultation consulter leen jël seen avis ñoom ñu def seen i proposition écrite jox la ko mais moo gën nga jël dajale leen ne leen dama leen di woo ci une heure temps. pour ngeen ñëw ma wax ak yéen seen seen sama seen sama xalaat tout en sachant que jàpp naa ne il a déjà les résultats de son dialogue. <clears throat> question des, des candidats spoliés sans auditer leurs droits, obligeant parfois le chef de l'État même à revoir un peu certaines de ses décisions. Est-ce que vous ne pas qu'ils accèdent à leur demande en décidant de reprendre pour le processus électoral si jamais de ces candidats refusent de prendre part au dialogue La dernière, on ne vous a pas entendu sur l'amnistie, euh, par chef de l'État. Si vous pouvez répondre en euh, Voilà, rapidement, donc pour, je suis membre du FC25, je suis membre de les entités euh, qui euh, les opposants. Je membre du F24, membre fondateur du F24, je du FC25 naturellement, je fais partie des 16 candidats euh, au niveau de cette coalition. Euh, je participe à toutes les activités d'une façon ou d'une je suis, j'appartiens aussi à une la coalition Papa Djibril Fall président qui a aussi sa ligne de conduite euh, qui a sa vision du Sénégal et qui ne manque jamais l'occasion de partager sa préoccupation du moment avec les Sénégalais dans la forme la plus transparente, la plus limpide, la plus claire. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui notre présence ici. Mais de toute façon, nous appartenons à cette coalition et à chaque fois que de besoin, nous sommes représentés. Euh, par, par, par rapport à l'amnistie, je suis aussi député de la République, donc j'attends le texte qui sera à l'Assemblée nationale pour pouvoir euh, aviser. Et euh, euh, le moment venu, nous aviserons, nous dirons aux Sénégalais ce que nous pensons du texte qui nous a été soumis. Mais, mais sur la forme, nous, nous ne sommes pas contre le pardon. Heureusement d'ailleurs que le pardon existe. Donc les sociétés humaines ont eu cette idée, cette idée lumineuse de créer le pardon. Il faut y mais je le dis, je le réaffirme, il faut la vérité d'abord avant la réconciliation. La vérité d'abord, surtout à l'endroit des crimes financiers. donc euh, di wax ne li nga laaj am na solo F FC 25 la ñu bokk di ànd ak ñoom ci lépp li nga xamante ni ñoo ngi koy def di naqarlu tey li nga xamante ni moom moo xew fële ci terrain xaar yàlla parce que euh, ñi nga xamante ni ñooy sunuy militants yi fa daje woon ak yenn leaders yi nga xamante ni tey jii teewoon nañ fa ngir jël carton bu xonq cur wala bu ñuul kukk daal di koy daal di koy dóor ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall mooy carton rouge euh, au président de la République qui a reporté cette élection ils ont déjà dañu tëj foofu barricade ko ba kenn mënu fa jàll donc jàpp nañ ne suñu démocratie weesu na lool. donc tey waroon nañu bàyyi nit ñi ñu exprimer de la façon la plus pacifique possible li nga xamante ni moom mooy seen seen seen naqar ci bés bi nga xamante ni tey dañ ko dañ ko dindi te concerté woo yow nga dindi concerté woo bëgg a delloo di si ne nañ ñëw concerté boo concerté woon kay ba muy dindi bu nee kaay leen ñu dialogué bu doon da ngaa dialogué bi ngay dindi sooy indiwaat dialogue bi dina mën a am sens mais yow bi ngay dindi tàgg woo kenn tey nga bëgg a indiwaat ne da ngay kii donc loolu loolu mooy sunu position par rapport à cette question beneen bi mooy par rapport ak amnistie bi société humaine rek ñoom ñoo créé ñoom ñoo créé le pardon muy baale lu am solo la waaye ñun dañoo jàpp ne baale boobu dafa war a tegu ci dëgg la vérité d'abord xam li xew dina tax li woon woon ni waaye bu fekkee ne dañoo jël lépp rek suul ko daan ne mel nañu mel ni ni ko président waxee mel ni dara mësta xew kon su boobaa li ñu daloon ci amnistie yi romboon mooy ñëwaat ndax amnistié woon nañ baale ay de sang baale ay crime financier te terewul ba tey jii ma wax ak yow 1000 milliards Covid 19 bi kenn xamut lan moo ci xew ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni jàpp nañ ne la corruption et la malgouvernance bokk na ci li tëye suñ réew mi donc ñun jàpp nañ ne vérité d'abord réconciliation ensuite donc loolu mooy suñ position par rapport a ça. donc par par rapport ak euh, Soxna Maya ak question bi sur le référendum xalaatuñu référendum xalaatuñ ko référendum pour lan xalaatuñ ko ñun li ñu bë mooy ñu jàpp date. appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel et aller vers une élection boo xamante ni dafay libre démocratique et transparente am na ñuy wax sax élection inclusive lu ñu kenn xamul fu terme boobu jógee une élection elle est libre elle est démocratique elle est transparente inclusion mooy am nañ deux cent soixante-trois candidats kon ngay tijji nañ ko élection du ñëpp du ku bëgg a bokk bokk ku mën a bokk mooy bokk

boo ko bëggoon amaan am na poste bu baax waaye tey question bi ma lay laaj mooy tey boo doonee président ndax yaa ngi xalaat yi nga xamante mooy prisonniers yi nga xamante ne jot nañ leen dégg suñu ne subir nañ ko su bare looloo waral ñu réew yi woo taskatu xibaar yi te dégg nañ kàddu yu wax nee na ci kaso yi amul torture xam nga man ci wàllu kaso yi dama ci doon wax lu jiitu lu jiitu population carcérale ñi ko njëkk a naqarlu Sénégal doon ko gën a naqarlu ci la bokk yemuma ci nag dama bokk ci ñi am chance su dem ci prison yi xam li fa ne dugg ci prison yi xam li fa nekk gis fa lu doy waar sama rôle député tax keroog bi la Madior fal ñëwee assemblée nationale ci perchoir bi laa toog taxaw damay fàttali journaliste yi ne ki ngeen jàkkaarlool ci seen kanam mooy député boo xam mësul tudd parti politique am assemblée nationale. assemblée nationale duma fa tudd parti politique du ma fa waxtaane sama kuréelu politique du ma fa tamit benn leader politique askanu Sénégal laa fay défendre loolu moo tax ma ñàkk ma naqarlu li xew ci assemblée ci ci prison yi devant le ministre Ismaïla Madior Fall. kon loolu du tey lañ koy wax en tant que président de la république li ma bëgg mooy Sénégal boo xamante ni kenn du xalaat a torturer doomu aadama kenn du ko xalaat waxuma la dans les prisons prison du fu ñuy toroxe prison boo fay dugg dañ naan da tooñ société bi le procureur il est censé représenter le peuple ñu ne léegi yow da ngay dem pour purger sa peine damay wax ne société humaine yi ñoom ñoo créer euh, la prison le pardon et la politique pour lutter contre toutes les formes de violence donc prison fu nit di yëkkatikoo la fu nit di defaroo la pour mën a réintégrer waat société bi mais fu ñuy du fu ñuy toroxale nit kon ñun nous sommes contre toutes les formes de torture amul benn torture boo xamante ni dinañ ci d'accord te effectivement la justice bi ñuy wax léegi ak vérité réconciliation bi bokk na ci képp koo xamante ni tooñ nañ la mais évidement su fekkee ne dafay laaj réparation mais li ci war yëpp état du Sénégal daf koy def ba xamante ni di nga retrouver sa àq ak sa yelleef dañoo dugg politique pour restaurer la dignité humaine. ok merci beaucoup puisque euh, les questions risquent de de de prendre du temps donc on va prendre également oui on va prendre euh, le doyen on va donner la parole il faudra également patienter parce qu'il y a deux personnes qui avaient levé la main Merci président Pape Djibril, vous comprenez bien le sens du droit de l'aise. Je vous en chef des organes Info 24 et l'opinion. Euh, Monsieur le Président, Biloufal, vous avez été, je ne vais pas dire mais vous avez utilisé des mots très forts aujourd'hui. Euh, dialogue fallacieux, deuil national, plongeons dans l'inconnu, forfaiture, c'est des mots très forts, vous êtes un confrère journaliste. ça c'est ce que je vous dis. Mais cela traduit votre amertume certainement par rapport à la situation que nous vivons. Et Je voudrais vous poser deux euh, D'abord, il y a deux Je ne parlerai pas du candidat du pouvoir, à mais je parlerai de vous, Abdallah John et de Idriss Seck, qui ne sont pas dans le groupe des 16. Est-ce que le FC25 a fait des pas pour aller les voir. Vous êtes le leader dans ce groupe. Je pense que vous devez pouvoir à cette question. L'autre question, c'est qu'on a parlé du groupe des recalés. Les recalés, euh, ministre euh, Sidiki Kaba a parlé comme devant être reçu par le chef de l'État après votre audience, votre audience qu'il a annoncée et sur laquelle vous êtes revenu pour la rejeter, pour vous comprenons. Est-ce que vous êtes allé aussi voir les recalés

ces mots que nous avons utilisés ne pèsent absolument rien devant la perte en vies humaines que nous avons constatée. Quatre morts, c'est ce que j'appelle les morts du report. Donc ces mots ne pèsent pas grand-chose face à ça. Donc je pense que nous n'avons même pas su trouver les mots pour qualifier ce qui s'est réellement passé. L'autre question par rapport au FC25, c'est la libre adhésion. Donc aujourd'hui, euh, libre à chacun des candidats d'appartenir à un groupe ou groupe. Nous, nous avons choisi librement d'appartenir au FC25, de participer à leur rencontre et d'être associés à toutes les décisions qui ont été prises dans ce, dans ce cadre euh, par rapport au recalé, effectivement, nous démarché, nous avons rencontré, euh, nous restons aujourd'hui, euh, hier plus qu'aujourd'hui, très ouverts pour euh, euh, continuer justement à massifier notre coalition. Nous enregistrons des adhésions tous les jours. Nous enregistrons des euh, identités remarquables qui quittent des, des, des, des partis politiques traditionnels qui nous rejoignent pour nous accompagner, qui croient en cet idéal qui est défendu. Et bientôt, Inch'Allah, on aura l'occasion de présenter au peuple sénégalais la coalition Papa Djibril président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons prendre donc la dernière question. Euh, bonsoir, Monsieur C'est Hassan journaliste. Hassan. Euh, rédacteur en chef de Souris Planète et Dakar Media. Voilà. J'ai une seule préoccupation. Vous avez tantôt parlé dans votre euh, fil conducteur logique de vérité avant la réconciliation. Euh, partant de cette considération, ne pensez-vous pas tomber dans le piège de leader d'opinion et le Sénégalais lambda que si vous refusez d'aller répondre au dialogue, vous avez bien sans doute vos raisons, vous risquez que les décisions soient prises à votre et vous n'aurez aucun impact sur l'avenir de votre pays. Est-ce plus intéressant d'aller répondre et de donner votre point de vue pour contraindre, pour faire votre droit de veto sur ce qui doit se décider là-bas Je vous remercie. Je vais rapidement répondre à cette question. Moi, je pense que le président Macky Sall a euh, toutes les informations. Il sait ce que nous pensons aussi de la situation. Nous l'avons dit, nous sommes en train de le dire. Donc, euh, et je pense que euh, le problème, ou bien la solution, c'est pas d'aller à la table de négociation ou de dialoguer. Nous, ce que nous lui demandons aujourd'hui, c'est d'appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel. Quelle que soit la formule, quelles que soient les décisions, quelles que soient les recommandations qui sortiront de ce dialogue entre guillemets, nous, on reste euh, focus sur notre objectif de devenir, d'être le prochain président de la République du Sénégal. Et notre détermination est telle qu'on ne voit pas aujourd'hui aucun obstacle qui pourrait nous empêcher d'y arriver. Ok, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Donc, euh, ici s'achève donc ce point de presse. Nous vous remercions donc de votre attention. Merci beaucoup, chers confrères.